man c'est c'est des questions cruciales là on devra mettre le curseur pour régler euh, définitivement yenn problème yi nga xam ne mu ngi ci xam naan temps bi xoj na la dama ci duggaat te dama ci duggaat léegi dama ci dugg mais déjà ngóon a ci ci li ñuy wax ni <laughs> ci li ñuy wax ni de ñaar waaw ñaar no balaa ngaa ñëw ci deuxième point dama laa bëgg a déglu d'abord <laughs> ci ay profil ñaar ci ay profil parce que xam naa ni bi ngay fréquenté euh, bërëb boobu ministère de l'intérieur et de la justice yàgg nañoo wax ni oui d'accord ñoom am na fu ñu mettre curseur bi ci liggéey waaye li fi jot a weesu aussi ci li ñu war a yoonal loo xamante ne jàpp nañ ni warutoon a am ay enquêtes yu ñu waroon diligente ngir xam fan la mbir yi féete ñu ñu njort ni xëy na est-ce que luubal ñu dégg nañ président ne ñi ñi guuxoon nañu goxi yooyu yëpp ndax jàpp nga ko a laaj la justice mu wax mu leeral lu mu woon kañu teg la justice waaw Sénégal ñëpp ndax jàpp nga liggéey boobu nañ ko def préparé ou c'est pas préparé ay waay may leen góode mu ñëw ndax mu mën a avancer oui wax dëgg yàlla su ma ci jamono yooyu ministère de la justice ak yi fi de yi fi nekk ñu jàpp ni tamit bokk na ci priorité ñu yoraat li nga xam te ne mooy loi d'amnistie bi. xam nga dañoo tolloon ci jamono joo xam ne nit ñi dañoo perte woon espoir. lu jëm ci wàllum justice. Mhm. di nga gis nit ku jotee nit sax day mujjee toog jàpp ci yàlla parce que danaan su ma demee du ma obtenir gain de cause. Mhm. nga gis ñu féete ci benn paak lu leen neex def. Mhm. ñeneen ñi nga xam ne amuñu wéeruwaay bu ñu waxee balaa ngoon ñu woosi leen nit def na fi émission ba pare wàcc ci euh, plateau télé ñu jël ko yóbbu nit toog ci émission wax lu ko neex dem ñibbi këram bu ñu jëlee civil civil dafa am lu mu moom mm. ñi nga xam ne ay militaire la ñu am lu ñu moom tey mën nañu am yaakaar ki nga mm. xam ne jox nañ ko le ministre de xam na la mu fay fekk jean xam na la fa nekkoon donc nañu ci mën a am yaakaar bu ñu jëlee tam li xam ne moom mooy ministère de la justice ku ne xam na ko du ñu ñoo ko wax mais ñi nga xam ñoom la bokkal di liggéey ñoom ñoo wax ne ba nit la ñoom ñoo def ci ay seede ñun mënuñu mën nañ seede ci moom peut-être parce que xam nañ ko nii mm-hmm. yaag nga dem tribunal yaag nga ko gis mais ñi nga xam ne yow ñoom ngay liggéeyal mm-hmm. ñooñ bu ñu defee ci yow seede muy seede jub te loolu lañu mës a wone tey bu ñu ko jëlee teg ko fa def ko keneen parce que am na lu xewoon mënuñu ci dellu siwaat loolu moo tax ñu tekki ndombo tànkam yóbbu ko mu continuer dans la dignité ba tey yàlla def mu ñëwaat fa nga xam ne tey moom lay toog mm-hmm. mun nañu am ci moom yaakaar lu ah. jëm ci forces armées en général nga jox ko forces armées boo ko joxul général koo koy jox doo fekk benn pa Ousmane boo xam ne xamul nu muy doxee xamul nu muy waxee xamul nu muy toogee xamul nu muy nuyoo nga jox ko nekk ko jiiteel forces armées lu ñu li mu wax déjà man mooy li ma la waxoon ci commencement bi mënaguma wax leen ci yaakaar gu may xaar ci ñoom ah. ndax la ñu wax defagum nañu ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut léegi nag ñu may leen benn temps ñu doxal hmm. bu ñu doxalee nag ba ñu gis ne ñii kat la ñuy doxal moom am na lu ci ne hmm. wala awul yoon fi ñu toogee woon fii ne leen kat li ngeen waxoon hmm. def ngeen ko fii dañuy toogaate ne li ngeen waxoon defoo leen ko. defoo leen ko alors euh, Ousmane Sonko premier ministre ne gouvernement de résultat. Mm -hmm. de rupture euh, d' su ma juumul waaye yu mel noonu. Mhm. ba pare jukki ay liggéey yu ñuy xaar. ci wàllu éducation. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee ah, déroulé na feuille de route bi ne nag mission bi daal dinañu koy euh, lancé mm. muy vingt cinq ñoo xam ne leen vingt cinq commando euh, ngir matérialiser cinq axes majeurs bu projet bu Pastef mm. euh, muy li nga xam ne xaar nañu wax na ko mooy le premier ministre Ousmane Sonko démb itam xam nga ci kàddoom gu njëkk dafa am ku mu xam ne dafa ko waxoon nit ñi noté di ci bàyyi xel mooy li nga xam dafa ne liggéey la ñu wax waxuñu nguuru mm-hmm. coono la ñu wax waxuñu nguuru ay loxo yu set la ñu wax wax ñu leneen. Mm. xam nga loolu dafa nekk ay euh, mot bu gàtt waaye la muy signifier dafa nekk lu am solo parce que ku yor loxoy set mosuñu la dénk ci détournement de deniers publics peut-être am yenn jaar-jaar yaakaar nañu ne bu ñu la joxee alalu askan bi hmm. di nga xam naka nga ciy taxawee ñu daan gis tam boo falee nit nguur mu am beneen comportement bu mu am ah. commencé changé doxin changé waxin changé sax numéro téléphone ah, daf fi am commencé non sérieux xam ne lu may wax ah, def vitre teinte nga leen di woo téléphone du ñu jël ngay soxla ay information ci ñoom duñu la jël hmm. ñuy xool plateau télé ñuy dem ak yuñ dul dem di couper xam teg na leen fii yàlla bu buñ ko gis ci ñoom. parce que sa coordonnateur kon man xam naa xam lu tax moom mën naa seede ci moom te la jot naa leen ci woon ndax am na ku ma lebaloon ñaari tàndal ma démb woon naa ko fayee ko ko <laughs> euh, mën na ministre communication bi man personnellement avant muy nekk ministre mhm. man tu euh, te bi nga xam ñoom bugg na nekkoon nañu Paris ñu doon lijjante benn entretien ak moom dama ko envoyé message à la minute qui suit ne ma lii ak lii maa ngi fii mais su ma ñëwaatee fii ngay gis kenn koo xam da nga koy envoyé message du la da koy gis du la faale nga am information booy laaj boo ko ko waxee du la faale boo ñëwee bind c'est normal boo ñëwee bind non non boo ñëwee bind dara mu commencé dal sa kaw ne danga koy xeex wala dafa am loo nax fekk danga leen daan soxla duñ la duñ duñ duñ la wuyu hmm. waaw mais dafa bari ci ñoom moo tax ma ci ma ci ma ci ma ci ma ci ma ci def dara léegi ci li nga xam ne PM wax na ko mu ngi doon rappeler euh, li nga xam ne mooy don de soi à la citoyenneté hmm. au patriotisme mais pas à un partage du gâteau comme ni ngeen ko waxee léegi ci ñenn ñi nga xam ne gisuñu leen ci gouvernement bi yàgg na wax ne projet moo leen boole ku yaakaar ne dangay ñëw tam pour pàccoo wala peut-être am ci part du gato bu yeboo nga noppaliku mais li nga xam ne wax na ko tam mi ngi ajouté parmi euh, les super priorités mm. muy la justice la protection des droits humains la bonne gouvernance la transparence la réduction des comptes oui. et l'amélioration des systèmes démocratiques et mu mm. muy nag loo xam ne comme ni ngeen koy waxee léegi wax na tamit lu jëm rekk ci renforcement sécurité du la paix de la stabilité du pays loolee la euh, pré euh, PM wax waaye consolidation de l'unité nationale de la cohésion sociale et territoriale oui alors euh, Sayanda li PM wax nii lan la bëgg a concrètement maanaam fii ak six mois fii ak ñu war koo dund lan la parce que yaa ngi tudd sànq benchmarking. oui projet boo xam ne bitim réew ak waa réew mi ñoo ko bind lan la bëgg wax. li mu bëgg a wax foofu moo di ne xam nga ñun bu ñuy liggéey euh, xam nga sénégalais dañu tàmm bu ñu leen di proposer dara ñu ne tey dinañu def lii bu ñu faloo dinañu wax lii dinañu def lii dinañ leen yóbbu fii programme bi nag dafa vaste c'est c'est très vaste. mais bi ñu koy liggéey ak euh, président Bassirou Diomaye fay moo coordonné woon programme bi. déjà moom ci boppam xam na lépp lu ne ci biir programme ndax ci jamono yooyu moo doon coordonnateur mouvement des cadres daf ñu tegal benn euh, feuille de route bu leer nañ ne ci liggéey bii ma leen sant pour ngeen liggéey ko dama bëgg ngeen defal ma ay proposition on a eu 33 thématiques hmm. te proposition bu nekk bu ngeen ma defal na ngeen ma waxal defal ma diagnostic te nit ñu gën a aidé ñiy diagnostiqué mooy ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mi xam fu ci nekk problème ya fa ne diagnostic bi bu ñu ko defee ba pare on va aller voir ailleurs ce qui se fait ailleurs dans la même thématique bu ñu ko defee ba pare ñu indi proposition yoo xamante ne day méngool ak contexte dëkk bi. Mm. te bu ñu ko defee ba pare na ngeen wax naka ngeen di def pour financer. Ah. li ngeen di li ngeen di proposer. Sénégalais yi fan ngeen di jëlee seen i source de financement. Ah. loolu yëpp mu nekk ci pare et à quel délai lañ koy mettre en place. Mm. donc ñun noonu la ñu liggéeyee au sein du mouvement des cadres. mënuma dugg nag ci détails ci ci ci ci mais au moins si nga xam jukki na ko. mais mais principe bi mooy loolu du ñu ñëw rek wax ne sénégalais bu ñu faloo lii lañ la ñuy defal dañ ko teg ci ay ay yu leer moo tax euh, li mu wax nii ci première mesure yi muy jël. Hmm. muy wàññi euh, tout ce qui lekk bi. ak naan bi parce que il faut que sénégalais yi di gis seen bopp te wàññi lekk boobu nag euh, nuñ koy def nuñ ko mën a defee dans un premier temps ki nga xam ne day jóg di jëndi lekk mu xaw ma loo doon jëndi foofu moom nen la doon jëndi <laughs> nga dem di jënd il faut que nga yëg ci sa poche que ni yow li ngay jënd wàññeeku na ki lay jaay tam warut a gaañu ah. parce bu wàññeekoo moom lu ci am bénéfice pouvoir d'achat ak panier de la mi ngi noonu léegi lu des mm. li ci des mooy subvention vous avez une question très par rapport à c'est-à-dire que effectivement la diminution euh, li ñu wàññi ci euh, lekk gi. ak mhm. comme ni nga ko waxee sànq kii jaay bañ a gaañu. Mhm. donc euh, ñu nekk dans un système boo xamante ne gagnant-gagnant la. Mhm. contrepartie bi nga xamante ne mooy wàññi li jëndkat bi di fay ak di wàññi kiy jaay la mu la mu kii en fait day am plan de subvention wala. un autre plan boo xamante ne il faudrait aussi que je pense que dans la gagné bi voilà non non cest dire qu'en fait de de li nga wax man je l'ai bien compris hein mm-hmm. et c'est très clair mais c'est que dans la tête du Sénégalais lambda mm-hmm. il faudrait que ñu xamante ne quand il y a une diminution mm-hmm. il faut pas que ça cause benn perte ki nga xamante ne mooy jaay et quelle est la source de financement de ce manque à gagner quelle est l'action du gouvernement parce que li nga xamoon mooy ay subvention ndax à la place de subvention tout à fait loolu moom wax dëgg yàlla dama ko dama koy bàyyeek économistes yi nga xam ne ñoo ah. ci liggéey mm-hmm. ñoo ci liggéey de parce que man comme li ma la wax ku ci mm-hmm. nekk ak sa domaine de compétence mm-hmm. donc comme li ma la wax programme bi yaatu na rëy na te guuxuma guuxuma lépp ci li nga xam ne ci laa liggéey ci ni ma ci informaticienne laa du ma mais mais c'est hyper important c'est très important au niveau de la synthèse on a tout compris mais ce que qui nous permettent pour que chaque Sénégalais xam ne su <coughs> ma daan jëndee vingt cinq francs su ma ko jëndee dix francs am na lu état bi def am na lu Sénégalais yi def et c'est cette cohésion nationale moo war a jaar ci bopp bépp Sénégalais muy muy dëgg li nga wax lu am importance la moo tax mhm. damay rebondir ci benn côté boo xamante ne muy Sénégalais yi il faut ñu xam ne ne lépp mënul jóge tamit ci état ah. te loolu euh, mm. ñun ñëpp dañu war a boole dugal suñu loxo ci liggéey bi te loolu la président Ousmane Sonko tàmmali woon naka ca Ziguinchor c'est-à-dire la participation de tous les Sénégalais dans le développement le financement participatif mooy euh, par exemple bi mu ne bi mu nee Sénégalais yi foofu Jakarta maan yi il faut ngeen fay impôt mmh. parce que Sénégalais impôt du ko tiital ah. parce que il faut ñu xam ne ne impôt mooy li nga xam ne ne mooy permettre tamit ñu defar suñu dëkk. mais il faut que ñu xam ne tamit ñu am wóolute moo tax le président Bassirou Diomaye Faye bu ne réconciliation dafa ne réconciliation ak la justice ak lépp. Mm. parce que sénégalais il faut nga expliquer leen tamit parce que temps bu njëkk ba da ngay fay impôt.